mbokki internet yi safoo setaan AGT news daleen ak jàmm ci xibaar Aram Touré nekk ca 2STV moom nag jóge woon fa ba ñëwoon ca TFM daal di démissionné waat delluwaat ca 2STV moom nag démissionné ti na ca boobaleb télévision li ko waral nag du leen lu dul ñi nga xam la ne ki nga xam ni moo di El Ndiaye nekk ab patron am moom dafay dugal ab loxoom bu baax a baax ci boobaleb télévision lu jëm ci wàllum programme yi lu jëm ci wàllum émission yi am ak itam ñoom sax waa rédaction nañuy defee seen ab liggéey moo tax nag moom Aram Touré mu daal di démissionné ca 2STV ndax dafa nekk ci app liggéey boo xam ne soxla wuñ ko ñu tënk muy wàllum journalisme journaliste dafay soxla am liberté ma am itam loo xam ne moo koy permettre moom mu mën a def ab liggéeyam ca na mu waree ndax traitement de l'information dara waru cee dugg loo xam ne dafay influer yow ci sa app décision wala itam ci sa app mbind ak sapp wax loolee nag moo tax moom Astou Ndione mu daal di jógee foofee nga xam ne moom moo di ca 2STV nekk ay mbir yoo xam ne nag ñu ci bëri ñu ngi ciy addu ndax dañ naan daal ki nga xam ne moo di El Ndiaye nekk nekk ak le président Macky Sall mi ngi feeñ bu baax a baax ba ci biir nekk mbir moo xam ne ñu ci bëri ñu ngi koy naqarlu ndax nag traitement de l'information jotewul dara ak lu jëm ci wàllum politique képp kuy ab journaliste rek war nañ laa bàyyi nga def sa liggéey ca na mu waree Ndeye Aram Touré nag ñëpp ràññee ci liggéey bu sell boo xam ne mi ngi koy def nekkoon ki nga xam ne moo daan animé soir d'info ca TFM waaye nag lii dafay wane encore une fois que ne ñoom waa kër Macky Sall képp koo xam ne rek da ngay déranger ñoom duñ la may dara tey gis nañ Pape Alé Niang mi ngi ne la ñu door mandat de dépo ma ngi prison bu Sébi Xotaan Ndeye Aram Touré lii ka dal itam ak yeneen i ay journalistes yoo xam ne ñi ngi dal seen kaw ñoom Pape Sané ak ñeneen ak ñeneen Babacar Touré moom kenn waxaale wu saa su nekk mi ngi def ay live naan dafa am ay ak ay menaces yoo xam ne ñu ngi koy jot saa su nekk loolee di wane nag ne réew mii dafa am ab tolluwaay boo xam ne bu doy waar la te ñi nga xam ne nag ñoo di taskatu xibaar yi ñi ngi en danger war nañ leen a protéger nag moo gën foofu ñuy jéem a jël ay mbir yoo xam ne yu ñaaw la di ko teg seen der wala bokk da leen indil ay jafe-jafe yoo xam ne seen liggéey daf koy gàllankoor lu ci mënti am mooy que ne nag Sénégal gi réewum droit la réewum démocratie la te képp koo xam ni da nga ci taskatub xibaar am nga droit def traitement de l'information waaye itam ab liggéey ñu bàyyi la nga def ko ca na ko bëggee ak itam ca na mu waree waaye itam yow journaliste bi bu ñu gis par parparloo ci sa ab liggéey ndax liggéey bu sacré nga yor te itam képp koo xam ne rek mu ngi la koy jéem a xañ war nañoo xeex ak moom ndax nag le journalisme est le quatrième pouvoir te képp ku ci bëgg ñu xam la gis la ràññee la il faudra que tu passes par la presse ndax ñoom dong ñoo mën a jël ab leader politique yëkkati ba ca kaw wala ñu jël ab leader politique dénigré ko ba mu suufee loola te lépp dafay fekk mu tegu ci ay charte yoo xam ne yow yaa koy jëfee yaa koy wanee lépp nag nekk ci traitement de l'information bu jaar yoon waaye itam nañuy bàyyi journalistes yi ñu am seen ab liberté liberté ci par rapport ak seen opinion waaye itam par rapport ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy amal saa su nekk mbokki internet yi safoo seetaan AGT News abonné leen ci suñu chaîne saa su ne ngeen di am ay xibaar yu werte te